déglu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khader eh, xam nañ ni yegg si na fii ci kër sëriñ Galas Kaltoum ci bisum Cheikh Momadou Lamine Bara bi nga xam ne bisam kon ñëw na ci bisam daje fi ak Cheikh Moustapha Mbacké mu Cheikh Sidi Moukhtar kon ñoo ngi koy jox kàddu gi ñu ngi nuyu bu baax sëñ Ismaïla Mbacké sëñ Gaynde Fatma nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu sëñ bi ne comme ñu yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi leen di siyaare di tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Moustapha Mbacke mi nga xam ni moo fi jëmmi Serigne Bara Falilou tey jëmmi sëriñ baara Mbacke di jëmmi Cheikh Sidi Muxtaar ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ bi. ñu ngi lay siyaare ci bis bi di bisub sa wayjur di sa bisub lépp rek di la sant bu baax seex mu Moustapha ci sa taxawaay barki dem bi mu la fekkee poroxaan mi ngi lay seereel lii mu wax tey biig ci guddi rek laa koy waxtaane te laa koy waxtaane te amoon nay seere ngir sa taxawaay yow ndax na sa way jur wa meloon rek nga mel te mooy wenn melokaan fu ñu la bàyyi démb fa lañ lay fekkaat tey ndax pasteefam ak dëggoom ak sag maandu kon ñu ngi ñaan ñu ngi koy ñaanal bu baax yan bii nga xam ne sunu borom teg na ko ci sa loxo nga wut sa maam ju tedd ja ci kër Cheikh Mamadou Lamine Baara yàlla na la yàlla kàttanal yàlla na la yàlla dëgëral ci barkeem te nag ñëpp seenum xel dal na ci nag ndax saw melokaan wi nga mel kon loolu yàlla na yàgg Cheikh Moustapha ba naal yi nga xam ne sa kilifa yi amoon nañ ko yàlla na ko mottali ci barkeb sëñ Tuba amin maa ngi nuyu Cheikh Modou Fadil si si Ngalas ci sa bisu wayjur bii Cheikh Modou Lamine Bara Cheikh Modou Lamine Bara Fadilou muy seere rek ndax tudd giñ ko tuddee Serigne baara bokk na ci lu fi indi sëñ Moustapha yow itam sa taxawaay sëñ Ngalas ci njabootu sëñ Touba gi amoo fenn frontière ñëpp nga ko séqal yow sëñ Galas Kaltoum kenn ku ci ne cër ba mu am ci yow jox ko kon yow itam sëñ Galas yoon wi nga nekk di xeeñtu ni kilifa ya daa doxe ñu ngi la ciy ñaanal ndax xam nañ ni sa yitte jëpp man li ma la daa faral di wax rek mooy am jox mooy am loo dajale rek ngir jox ko nit ñi. loolu daal xam nañ ko ci yow mën nañ koo seere te loo yor man nga koo joxe yow Sëñ Galas Kaltuum waaye yàlla wax na ci alxuraan lépp lu ngeen dépassé ak lu mën a doon rek dinaa ko wuutal lu ko ëpp wala lu ko gën joxaat leen ko yàlla na la yàlla defal kattan lépp solo te ngërëmal Serigne Touba Sëñ Galas Kaltuum yàlla na la ko yàlla defal nee na sëñ Basiru ne loolu mooy lépp ngërëmal Sëñ tubaa nee na mi ngi baamuwaat si galaskaaltum yàlla la yàlla defal ngërëmal sëñ Touba nee na sax laal ñun ñëpp yàlla yàlla defal ngërëmal sëñ Touba ku xas am ngërëmal sëriñ Touba ñàkkoo dara ku am àdduna li ci biiram te amoo loolu day mel ni amoo dara kon yàlla na nu yàlla defal ngërëmal sëñ tubaa bis bi yàlla nañ ko yàgg a teewee ñu di ko defal sa way jur Cheikh Maodo Lamine Baara tàmbalee ko. ci yow war a jëm kër Cheikh Moustapha nañ ko daa defe àggale ko yàlla nañ ko teewe at yu bari yàlla nañ daje ngërëmal sëñ Touba ci bisu sëriñ Baara bii yàlla nañ am toujours kàttan gun ko man di defee yàlla na yàlla nangu ñaan yi nee na jërë ngeen jëf sëñ Bassirou Abdou Khadre lii moo taxoon nu bëgg jég déglu say kaddu jërëjëf Mbacke. bég na nu baax li taxoon Cheikh Modou Lamine baax ja teg la loxo ak yu wax Cheikh Sidil Muxtaar nga doon loxoom kenn ku nekk dégg na ni moo waxal boppam mooy saay bët mooy saay tànk mooy saay loxo mooy saay nopp lii la moom la Cheikh Sidi Muxtaar wax ndax bu budul woon li nga doon seen way jurit boppam ci noppeem gu bari ga te loolu daa feddali waxi magam ju baax ja rek Sëriñ Bara Falilu yàlla nañ am ñun ñëpp ngërëmal Sëriñ Tuubaa waaye ñu nekk sa ginnaaw ànd ak yow noo ñaan nangu leen Sëriñ Galas wallaay jëmm ji toog wa siblu fil max bari mislu la asadi waxoon nag keroog borom ma xam ne ne gaynde gu ndaw mooy gaynde rek sëñ Moustapha ñaanal sëñ Basiru mu nga ñaan amiin